murtajan minnatun lana jariun billahi min asheytaani arrajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi alladi xalaqa samawati wal ardi nuur mbokki asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ginnaaw sant yàlla julli ci yonentam bu tedd bi ngi dellu siwaat ci seen émission bi ñu tudde madinatu ilmi te ñu di ko amale fii nga xam ne moo di seen site bi ñuy wax 24actu tey ji ñu dellusiwaat siwaat nin ko baaxoo def ak yéen di ñaan sunu kàddu fekk leen ci jàmm ak tawféex tey ñu dellu siwaat fas yéene waxtaan ak benn tomb bu gàtt bu itteel xam ngeen ne yàlla sunu borom bi mu wàccee doomu aadama yi ci kaw suuf ak ñi doomu aadama sax ku ci nekk daf laa jox say àq yoo xamante ni yaa ko moomal say bopp àq yooyu yenn yi ñi la wër ñoo la ko ameel yenn yi yaa ko ameel sa bopp yenn yi nag yàlla sunu borom moo la ko ameel tey nag àq yi nga xam ne waajur wala kilifa def koo ameel doomam yooyu la waxtaane àq yooyu de jàpp naa bi ci jiitu mooy xale bi nga wutal ko ndey ju baax ndey joo xamante ni fu ko tuddee xolam sedd mu xam ne ndey ju mat la joo xamante ni wutal nga ko wala yow it àq la ci nga wutal ko baay bu baax boo xamante ni foo tuddee baay boobu ñu doon baay boo xam duñ ko xeeb dunu ko woyafal ci ni mu bindoo wala ni mu mel waaye te yaay joo xam boo ko tuddee ñu ne ah nga wutal ko sa doom te fekk ne ba nga ciy dugg xamoon nga ne yaay ji nii la mel lii mooy ay wala baay boo xamante ni boo ko tuddee ku ci nekk xaw a doyadil tur gi nga ko tudd wane ne ci biir askan wi wala ci biir société amu ci benn wàccuwaay bu am solo benn mën am. lu ñàkk solo lay représenté ci société bi mën naa dem sax ba ci fecc fecckat lay doon wala mu doon mbandkat wala koo xam ne day jëfandikoo loo xamante ni luy yàq xelam la sàngara wala dorog wala nangam nga askanale ko fexe ba kooku di baayam wala muy yaayam bu dee ci wàllu fecc rek doye di gin ci wax ak ñàkk gi xam ngeen ne nit koo xam ñëpp danoo toog nga génn say cër di fecc di def noo xamante ni li waroon na bu ci yow lépp mu ngi feeñ ak ku xam doomu aadama ni mu bindoo ñëpp toog ngay ŋàlleeku di xëy ci loolu yàpp naa ne lu ci waay mën a jëlit ba teg ko ne ñu ci bari sax waxee ñu ne bëgg teral sama bopp wala teral sama waajur moo tax waaye benn tontu lañ ci def la imaam Malik waxoon ne fecc de xawma araam na wala dagan na bi ñu ko laajee mu ne xawma araam na wala dagan waaye lu ci mën a am daal ña gën a doyari ci sunu dëkk ñoo koy def te imaam Malik mooy borom ngir mu mag moomu comme noonu la ko àttee te loolu jàpp na ne moo am ñoo ñi ko gën a kii rek ñoo koy def bu ko defee xale bi bokk na ci nga wutal ko waajur wu baax bokk na ci tamit nga wutal ko aw tur woo xamante ni tur wu tedd lay doon woo xamante ni tur wu kenn du ko du ko reyee ci tur woowu ndax tur la woo xamante ni euh, euh, lislaam da ko tànnulu ci ñun lislaam dafa wax ne bu dee doom ju góor aw turam yi gën ci tur yi mooy turi Abdullahi wala Abdurahman wala tur yonante yi kon bu dee jigéen it nga tànn tur yi nga xam ne moo gën ci turi jigéen nga tudde leen ko loolu bokk na ci bokk na ci tamit bu tolloo ci jàng nga dalal ko mu jàng alxuraan surtout bu dee doomi jullit nga dalal ko mu jàng alxuraan xale bi li mu war a njëkk a dégg ci noppam mooy ak nodd tudd baatu la ilaha illallah allahu akbar ndax allahu akbar defoon nañ ci émission ci takbiir yi nga xam ne war na ko waaye saytaane dafa ñemewut baat boob saytaane fu mu déggee ci juma wala ci ñu nodd saytaane day daw saytaane moom day daw dana wëqat di daw ku amoon basira ba man koo gis saa bu nu noddee wala nga ne allahu akbar loolu su ko seytaane déggee day daw xale bi loolu la war njëkk a dégg moo tax médecin yi ak fi xale bi juddoo war nan yow yaay ji wala médecin yi ñu jàng nodd boobu xale bi juddoo ñu njëkk déggal baatu baatub tawxiid boobu wala baatu laa ilaaha illallaah loolu xale bi da ko àqale ji moom àqala ji nga dalal ku mu jàng wax naa ko nga fexe ba wutal ku mu jàng ndax ñàkk jàng ci société bu yu mel nii ak société l'islam loolu ak doye di la ak réer la mooy doo xam sa diine doo mën a jiite dara nekk nit ku doyadi moo tax yooyu yëpp dafa bokk ci qualité yi ni wutal xale bi xale bi nang ko wutal ndax xale bi boo déggee ñu ne wutal ko yaay ju baax wutal ko nangam boo ko wutalut moom yow mën ngaa baax yow ci sa bopp yow mi ko wut yow mi wutal yaay ji yaay ji xaw a doy waaye ay nijaayam ñu naa ko ah, say nijaay ji askan sàngam lan bokk nangam lan nit ñu mel nan ñoo xamante ni yéen seenu askan da koy jombulu wala da koy kii moo tax xale bi waroo ko wutal lool bu dee ci ku góor ki it ko. yonante bi nag waxoon nañu ni nii wute yaay joo xam ne la ca gën mooy diine ci ku góor jigéen gi ku góor ki tamit bu amee ngor ak diine mën ngeen koo may jabar bokk na ci xale bi tamit nga wutal ko boo ko jàngalee boo ko jàngalee tamit jàngal bi bokk na ci xale bi bu amee juróom-ñaari at nga digal ko muy julli ngay jógal julli booy julli ji di ànd ak moom ci jàkka ja ñëwal julli ñëwal nangam muy julli bu demee ba am fukki at. bu fekkee ne nanguute julli dañ ko cee war a dóor dañ ko war a dóor ci julli kon lislaam gis nga état bi yi muy def bu fekkee ne am am na fukki at muy góor muy jigéen da nga ko war a digal muy julli da koy digal ci juróom-ñaari at boo amee fukk bu bañee nga tàmbali di ko dóor ndax foof xale bi tëwagul te bàcc bàccal bi dina tax waaye boo nekkee ba mu fukki at juróom-ñett wala dix-huit nga tàmbali naa ko boo julli dina ma rey ak dinaa la rey loolu jàpp naa ne xale bu toll ci dix-huit am doole naa ne ak góor gu toll ci juróom-ñaar fukki at bu ñu bëggee rayante jàpp naa ne mag mi moom mën naa dee moom looloo tax ñu koy bëgg gis nga yar bi éducation bi lislaam joxe bu tolloo ci loolu waxu la bu tolloo ci fukk waaye bëgg yooyu yëpp julli ji di ko tàmmal xale bi bu ko tàmmalee bu demee ba toll ci fukki at da koy miin day koy bëgg sax da koy bëgg ndax day gis ne waru gar la ci moom ndax baayam da koy yóbbu ci takkusaan timis gee yëpp da koy yóbbu ci jàkka ji ñuy julli yooyu day dem ba bu ko gisul day yëg lu waru gar la bu mu war a def xale bi nag foofu la ko yëg bokk na ci xale bi tamit euh, li yonante bi sallallahu alayhi wasallam ne nit bu juddoo fitra la maanaam amul benn takk-takk euh, ay waajuram wala milieu bi mu muy ñoo koy soppi mooy sunu bëggee mu doon yahoot wala mu doon nasaraan wala mu doon ko ci la koy doon yooyu yëpp bu dee jullit la tax sax ñuy wax ci xeet yooyu ak ñi ko war a yar ndax xale bi tamit addis boobu di nga ko dégg ndax ñi ko war a yar du baayam ak yaayam rek yenn saay xale bi juddu yaayam du ko yar baayam day fekk ay baayam ak yaayam kon ñeneen ñi mu yor a war responsabilité ñoo taxaw taxawaay boobu ñoo ko war a yar jàngal ko kii ko. bokk na ci xale bi tamit àq yi mu am ci àq ñu war koo di foo moom di waxtaan ak moom yooyu da ko am xale bi da am àq ngay toog ci wetam di wax ak moom muy yaayam wala muy baayam ndax xale bi warul gën a miin ñaari muy waajuram ñaari waajuram muy baayam ak yaayam ñoom la war a njëkk xam ndax li muy jegenteeg ñoom surtout yaayam. ndax gis nga ne xale bi yaay ji ko ëmb juróom-ñeenti weer ak nangam bu noppee suñu borom dénkaat ko ko ñaari at ne ko nàmpal ko foofu lu bari loo bëgg xale bi dégg ko wala mu xam ko dina ko xamee ci yow xam nga ne xale yi foofu la ñuy jàng saaga fi la ñuy jàng nangam fi la ñuy jàng na ñu baax ñi nga xam ne nag ñoo yor seen doom xale bi fi muy toll foofu fi lay mën na fee mokkal ay saari alxuraan yu bari dina dégg ngay jàng alxuraan di am na ci saxaba yi wala ci ñenn ñu seen waajur yi baax Euh, saar yu ndaw yëpp ci seen yaay lan ko mokkale ndax diggante bu dañuy dégg seen yaay di ko tari di ko jàng di ko nangam léegi sunu xale yi lan lañ ñuy dégg mooy ay saaga la ñuy dégg fan yii am fi mu toll xale yu ndaw yu tuuti rek da ngay gis xale bi portable yi liñ ciy suye sëy yiñ ciy def yëpp dañ koy man kon moo lay wan ne la xale bi loo ci bëgg a def foofu dina fitra la boo bëggee mu doon ku baax dina ko doon boo bëggee mu doon ku kii xale bi tamit foofu am na àqam ngay waxtaan ak moom mooy waxtaan wi. am na waajoo xamante ni nee na man li ma daan liggéeye mooy dama daan liggéeyee kuy ni mbalit yor brouette di tonni mbalit. nee na jamono yooyu maa ngi toll ci jàng sax waa ji koy nettali moom moo ko nettali mu ne bi mu tollee ci jàng nee na kër gi ma daan jëlee mbalit kër gi dafa séparé maire baa nga ñaari nit kenn kaa ngi nekk nii kenn ki nekk nii. nee ma dégg leen ñu toog di waxtaan ak seeni doom maa ngi dégg kenn ki di ko wax naa ko sa njàng mi gis nga boo góorgóorluwut ba njàng mi réussir ba sam njàng baax gis nga. ni kële ngay def da ngay mujj di tolli ji mbalit noonu ngay def ni moom ngay def nee na bi ma déggaatee keneen ki de waxtaan ak jamono ak doomam mu ne ko yow de boo fexee ba at mi ba sa njàng mi réussir waa ji mën nga koo sensel situation bi mën ngaa fexe ñu mel nii mën ngaa fexe ba sens seen situation mooy lan mooy ki doon puus brouette di waroñ ay mbalit kooku ku ko wutal oto mbalit wala nga wutal ko lu man di tonni mbalit mi wala ay peel yoo xamante ni wala nangam jàpp naa ne loolu sensé nga situation loolu li nga ci dégg mooy xale bi li nga koy wax na doon lu baax mooy yow xasaale nga ci kii ba noppi xasaaleel ko ci métier dégg nga kenn ki ni mu ko wax ne ko boo jàngul ni kële ngay mel da ngay doon tonnikat mbalit xeebaale na ci waa ji ba noppi waxaale kii nag dafa waxaale waa ji taggaale ko ne ko boo noppee nag sa njàng mi bu resiré nga sensé situation bi kon nit ki noonu ngay waxtaanee sa doom. di ko wax tamit jamono yo ameel nga ko ak di ko wax fan la bokk ñan ñooy ay mbokkam kan mooy maamam ñan ñooy ay bàjjanam fan askan la bokk askan yu mu bokk askanu lan la seen cosaan lan la lan lan daan def ndax bu ko déggut ci yow dana ko déggee ci mbedd mi. bu fekkee ñu ñoo xam dañ daan def loolu ay ceddaloon xamoon ci jamono yi ñu ne ko ñun kat bu njëkk sunu maam yenu njëkkoon a bi nuy nangam ñooñu moom daanan def nangam di def nangam waaye ginnaaw bi sunu maam yenn yi li ko dale ci maam sàngam jamono yooyu nag lan tàmbali nekk nag dugg dëgg di bàyyi yooyu ñu daan def jaamu xërëm yi yeeg njëwar daan def ak yëpp ba léegi jàng alxuraan ak sunna rek mooy sunuy mbir bu ko defee xale bi xam lool xam ne kat amoon nañ cosaan waaye nag loola jóg nañ ci. jóg nañ ci bu ko defee xale bi loolu bokk na ci li nga xam ne moom daf ko war a teel a xam bu fekkee ay nit daara ngeen jàngkatu alxuraan nanga nga ne ko ñun kat sunu askan kenn gis nga ñii di naan sàngara mësut am ci sunu askan jigéen joo xamante ni sëram dafa woyof wala nangam mësut am ci sunu askan sunu askan yi tamit kenn kun ci dégg ñuy sàcc wala ñuy doroge wala ñuy def nangam nangam li doonoon seen mit daal mooy jàng ak liggéey ak jaamu yàlla ak ku nu mën a dimbali dimbali loolu moo doonoon askan wi yow nag fexeel ngal la ba loolu ci askan wi nga yokk ko ndax am na yeneen mébét yu ñu fi bàyyi yu deful te ci yéen ñii leen ko yaakaara doon daan wax yàlla am ay doom ba doom yooyu àggale yéen ji bu ko defee loolu àqi xale bi mu xam boppam. xamal koy tamit na ko gone dafa war a wormaale ni mu wormaale yaayam ni la war a wormaale ku ma ku toll ni yaayam noonu la ko war a def ku toll ni baayam mi tamit noonu la ko war ma ju àq ju mel noonu la ko war a jox ni nga ma jox ne ko nii nga ma teg fonk ma lool def ma ko noonu noonu nga ma war a def. xamal ko tamit ne ko ne yërmande dafa baax loolu ndax yow mi bi ma la doon naa bëgg di jóg waaye mënu woon a jóg ndax yow sa àq bokk na ci koor daana ñëw sax man dara duma jot man na maa woor waaye dañuy damay yëg ne yow ci sama biir mënoo woor ndax xiif bu ma wooree di nga xiif te ci man ngay dundee bu nàmp koor jotee may nan xale yaay ji mu mën a woor waaye du woor ndax bu mu wooree du am lu mu jox xale bi te yow sa dund ci kii la war a jóge nga ne ko yooyu yëpp daaw koor daaw gi wala daaw ji at na at ma la ëmbee wóoruma woon te dara teguma ko woon dara jotumoon waaye booba bu ma wooroon yow doo judd mën ngaa faatu ci sama kii ne ko tamit jamono yi ngeen nàmp daanaa bañ a woor sax te booba dara jotu waaye su ma doon nàmpal su ma doon woor yow da ngay xiif doo mën a lekk moo tax te loola sa àq la nit ki tamit su fasee jabaram jabar ji toll ci ëmb àq la ci moo war a dundal xale bi du caage nag ndaw si la war a dundal dëgg waaye war naa dundal ndaw sax waaye àq ji ci gën yàlla mooy àq xale bi daa war a yaayam ba kera muy fer wala ba kera muy nangam loolu àq la jun ko ameel nga ne ko àq ji ci mujj nag mooy àq boo matee tollu ci wata xaraf ñu xarafal la boo tolloo ci war a takk jabar ñu jàppale la boo amul mooy àq jeneen ji ci des sama diggante yow mooy àq la joo xam boo faatoo nag àq jooju dañ laa war a suul kenn waru laa bàyyi dañ laa war a jegeenal defaral la nangam sa la loolu àq la joo xamante ni xale bi daf koo yeeyoo bu ko defee loolu yàpp naa ne koo ci demal na ne ko nag sa àq nag boo ko xarafalee ba takkal ko jabar ne ko léegi nag sa àq jeex na ci man sama àq yow sa àq des ci man bu ko defee kon bii di ñëwaat dinañ waxtaane àqi waajur waajur wi maanaam doom jën àq la la la am ci waajuram pour war koo toppatoo loolu moo war a doonaat waxtaan wi ci saat suñu ko yàlla fekkee loo tanu man ko dinañ ci def lan ca man ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp seexu naa ma nekkoon ci caméraman bi Euh, soxna Awa Ndiaye moo réalisé émission bi soxna Khady Niang moo ko doon monté ñu jox leen daje yeneen jotaay wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.